ziyaare ko président nag daf ma ne fooy dem xoolal membre gouvernement bi nga ànd ak ñoom pour la nga xam ne moom moo gën a yitteel askan wi nga xoolal ma loolu euh, jàpp nañ ni tey bi ñu waxtaan nekk autorité yi muy gouverneur maa ngi koy nuyu di nuyu ministre de l'hydraulique di nuyu aussi ministre bi nga xam ne moom la ñu toftal ci ministre de l'hydraulique di nuyu aussi monsieur le maire ndax ñoom ñëpp ñu ngi fi ak yeneen ministres yi ma àndal ñoo xam ne ci ci région bi di nuyu aussi directeur général lu ONAS bi ñu ñëwee nag jàpp nañ li jëm ci inondation mbënd mi moom moo gën a yitteel Touba guddi yi ñu toll ndax yàlla dafay dogal dafa dogal euh, màggal bi mu ngi am ci biir nawet gouvernement bi nag ñetti at yu mujj yi am na programme bu am solo boo xam ne commencé nañ ko programme boo xam ne toll na ci ñeent fukki milliards ak juróom ñaar fukki milliards yi ñaar euh, ak euh, fukki milliards ak ñaar moom ci eaux usées la maanaam ndox yi nga xam ni moom la nit ñi di jëfandikoo ci biir kër yi euh, ak yi ñuy fóote gi mel noonu mooy ndox mi nga xam ne setul kooku def nañ ci fukki milliards ak ñaar wax nañ ma ni liggéey boobu fi mu nekk nii euh, téeméer yoo jël juróom-ñaar yi ak juróom pare na mais nag xamal nañ ma aussi liggéey bi des na ndax euh, xaalis bi dina am lu ñu ci dolli moo tax bi muy ñëw waxtaan na ci ek ministre des finances xamal dama ni programme boobu amaat nañ ko ci et incha allah mën nañ jàpp ni lu jëm ci Touba ak yeneen ville yi nga xam ne am nañu problème boobu liggéey bi dina mën a tàmbali du mu gën a gaawee li ci des nag demoon ci wàllu ndox bi nga xam ne ci taw lay jóge gis nañu at yi passé euh, yàlla may nañu ñu am nawet muy nawet gu barkeel ñu ngi koy ñaan yàlla it ren ñu amaan nawet bu barkeel noonu mais dina ànd ak euh, ndox mu boo ñu amee ndox mu bari mën na ànd ak ay xool naa liggéey bi liggéey bi dëgg neex yàlla yéeme na liggéey bu rëy la Euh, maa ngi laaj léegi ministre bi nee na ma ci Sénégal amul feneen fu ñu def conduite yu day nii ndax conduite bu ci nekk daanaka 2 mètres 50 gis nañu ay nit nekk ci biir xam nga deux mètres 50 yaatuwaay bi doon 3 mètres kooku mën naa jël ci ndox mi lu bëree bari te dégg naa ni conduite bi ñaar lay nekk te conduite yëpp fii la jëm mais li nga xam ne am na ci jafe-jafe mooy fi mu war a jaar ndox mi fi mu war a njëkk a taxaw. doog a ñëw fii muy ngélému dafa amoon ay problème maanaam fa am ñu fa xam ne dañu fa dëkkoon euh, nanguwuñu fa woon jóge ndax jubbuwuñu woon ak euh, gouvernement bi dégg nañ ni sëriñ bi jàpp na ci moom la ma préfet wax léegi que ñooñu incha allah en tout cas la nga xam ne moo ciy cëru gouvernement wax nañ ko SONES bu soobee yàlla ci biir semaine bi dinañ ko ONAS kon wax nañ ko waa ONAS euh, ci biir semaine bi lañ ci war a defee dañ ko dañ ko dañ ko ci def pour la nga xam ne yoral nañ leen ko muy seen àq dinañ leen ko fay ba mu mot sëkk comme ça ñu mën a libérer site bi mën koo mën a waajal nawet bi ndax nawet dañ koy waajal balaa muy taw mën koo waajal te incha allah kooku nee nañ ma euh, di kooku moom danañ ko def ci nu mu gën a gaawee maintenant leneen li nga xam ni des na mooy entreprise bi ci conseil interministériel bi amoon na lu ñu doon jàmbat lañ doon jàmbat mooy alal juñ leen yoreloon loolu dégg naa ni ñoom sax seen bopp ñoom ñoo ko dëggal léegi fay nañ leen genn wàll gi jot nañ ko barki démb moo tax ñu ngi liggéey la ci des incha allah ci biir semaine bi dinañ leen ko fay loolu sax du xaalis bu ñàkk teew déedéet ndax xaalis aussi boo koy génnee di ko jëmale ci entreprise wala lu mu mënti nekk ña nga xam ne ñoom lañ ko dénk am na lu ñu war a saytu maanaam dinañ xool facture yi xool ndax liggéey bi def nañ ko ba pare. Hmm. incha allah loolu euh, ministre des finances ak may wax léegi ci biir semaine bi de yëpp dina dina mot waaye xam ngeen ni daaw bi taw bi ñëwee bett am na liggéey buñ fi jot a def euh, ONAS commandé woon ko. ci ndigalu ministère bi mooy tuyau yi ñu gis kooku aussi entreprise bi am na lu ñu ko ci yoreel loolu nag pour ñu mën ko fay ndax li président de la république bëgg mooy lépp loxo xam koy liggéey dañu ko teg ci yoon pour ñu mën ko fay li nga li ñuy war a def moo mooy am ak ñoom marché nu mu gën a gaawee ndax boo nekkee ci ndox taw ñëw nit ñi di loru kooku doo xaar procédure dafa am looy def ci ci saasa donc yéen ñun ñëpp teg nañ sunu bët ci loolu incha allah wax nañu ministre bi wax naa ko ci conseil interministériel bi dinañ ko ci euh, soññ bu baax a baax a baax a baax comme ça fii ak fukki fan fukki fan ak juróom lépp pare nga xam ni bu ko bu paree bu boobaa ministère des finances dina mën a am ci lu sukkandiku pour mën a fay loolu ndax bu dul loolu it dañ fi nekk rek di xëccoog entreprise bi def nañu lii defuñu lii fay nañu fayuñu fekk euh, li ñuy war a def defaguñ ko xam na lu ci manqué moo tax incha allah. Euh, gouverneur yi ngi topp loolu bu baax a baax a baax ministre bi wax nañ ko bu baax a baax a baax monsieur le maire aussi mi ngi fii nee nañ ko chantier Touba yi xam naa ni yitteel na ko waaye yitteel na sëriñ bi waaye gouvernement bi nañ ko yitteel nañu bu baax a baax a baax dinañ fexe ba loolu mot ba nga xam ne nu mu gën a gaawee entreprise la nga la mu war a jot yëpp dina ko jot comme ça nañu soññ ko topp ko pour que commande yi mën a gaaw liggéey bi mën a gaaw comme ça bu ñu nekkee ci biir nawet bi màggal bi yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam Euh, ñu ñaan yàlla mu taw waaye it bu ñu amee ndox bu baree bëri yu mën a toog xam ni daaw bi ñu amee ndox mu day nii nii la meloon waaye ren am nañu ndox xëy na am na lu fi nekk waaye wàññeeku na bu baax a baax ndax liggéey bi am na loo xam ne def nañu ko ci yéene président daal ci gàttal mooy bëgg na Touba comme li jëm ci Sénégal yëpp lépp loo xam ni euh, ci nii askan wi la jëm ñu fexe ba yombale leen ni ñuy dundee bu soobee yàlla gouvernement bi na ci taxaw loo xam ni ñëw naa Touba pour ziare si. waaye am na yeneen yu ñu fi war a gis am na yeneen yu ñu war a xool nit dañ ko topp ci gouvernement ma leen sant di leen gërëm